yi yëngu ci assurance te nekkee ci diggante Touba ak Mbacké jamono ji nag boole nañu seen i doole gannaaw am ndaje moo xam ne nag ñi ngi ko doon amalee ci Touba 28 ci la ñu taxawalee kuréel goo xam ne ñi ngi ko tuddee ASS nekk nag association pour la sécurité sénégalaise. waaw juste dañoo woote woon pour taxawal benn association boo xam ne day day lënkale yëpp apporteuru ASS assurance bu nekk ci pôlu Ila Touba. ci fànn googee nga xam ne nag ci la ñuy yëngu jàpp nañu ni bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne ñi ngi koy jànkonteel ci dëkk bu sell bi di Touba. li ko waral nag muy ñàkk a xam secteur boobee nga xam ne ci la ñuy yëngu. waaw suñu njiit moom mooy ak taxaw gu mat sëkk moom la ñuy sàkku ci ñoom te moom la ñuy séntu ci ñoom parce que dafa am foo xam ne dañ faa jëlee ASS am fuñ ko andi ndax ASS lii ñu leen defal sax ñoom séntu wuñ ko woon kon ñun la ñun ñu ci terrain bi kon nag bu ñu agsee ba fii euh, rafet na ñoom it ñu am loo xam ne dañ koy warloo ak ñun li ñuy sàkku ci ñoom mooy ak taxaw gu mat sëkk ku ñu taxaw ndax jafe-jafe yi bari na ci ñi nga xam ne ñoo ñu war a taxaw mbirum koppar ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon yooyu euh, daf di doon loo xam ne foog rek ñu jege ñu parce que nit ki boo ko jegewul mënoo koo taxaw. dañ naan kay nit ñi ñoom ñoo xamul ni assurance di doxee aussi assureur yu bëri du ñu expliquer seeni clients lan mooy assurance parce que da nga gis nit mu ñëw assurer otoom bàyyi benn garantie. yàlla dogal garantie boobu mu bàyyi mu am ci problème bëgg assurance fay ko ca ni ma amee habitude di ko wax assurance du fay garantie bu mu jël gannaaw ndaje moomee nag ci diir bu yàgg ci la ñu tàbb ki nga xam ne nag mooy Mame Cheikh Diop mu jiitee association bi nga xam ne moo dajale assureurs yi ci Touba. Euh, may rafetlu lool wax dëgg yàlla di leen sargal di leen jaajëfal bu baax euh, ci tànn bi nga xam ne moom lañ ma tànn xëy na euh, njalbeen gi amoon nañ jiixi jaaxa yaakaar na xëy na tànn njiit li dana doon lu doy waar mais nag ba ñëwee wax dëgg yàlla doon na lu oyof lool wax dëgg yàlla kon loolu maa ngi ciy sant yàlla bu wér wéree wér a xëy na du sama xarañte du sama xam-xam waaye nag wax dëgg yàlla xëy na day coobare suñu borom kon nag dañ koy nangu te xam ne lii la yàlla dogal te it euh, bëgg kenn ku ci nekk euh, ñaanal ma ba nga xam ne yan bi dana woyof lool ci man. gannaaw loola itam ci waxtaan bi nga xam ne moom la ñu doon amal am nañu yéene ngir assureur yi nga xam ne ñoo nekkee foofee ñu daal leen di taxaw rawatina ci équipement ci seen bureau yi di ay jumtukaay yoo xam ne dañu koy faral di soxla.